bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu jottali leen ndigal loo xam ne mi ngi bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha xalif général des Mourides di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ba mboolem li mu yéene ci liggéeyu Serigne Touba mu matale ko te ñu ànd ko ak moom muy ndigal lu mu joxoon waa rawdu rayaahin ñu jottali ko mu aju ci bis bii nga xamante ni mooy àllarba ji mujj ci weeru safar am nag ay ñaan yuñ ci def ak julli ak yeneen am nu sëriñ bi digle bëgg ñu doxalee ko ni mu wax ne ginnaaw bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmahin mu ne nag dajaloo ci jàkka wala barab boo xamante ni barab bu mbooloo di daja ngir julli gu mel nii yii wala naafili yi ci bis bi mujj ci bisub àllarba ci weeru safar loolu du mbir moo xamante ni lu ñu xam la ci charia terewul nag fegu ak ñaan ñu mën koo def kem ni nga xamante ni la ko Sëriñ digle mu sax ci alxuraan ak sunna képp koo xamante ni nag bëgg na cee def ay julli walla ay ñaan wala yunu mel te mu toxalee ko sukkandikoo ko ci boroom xam-xam yoo xam ne suñu boroom moo leen defal kësfu nee na sañ na ko waaye ci sarti nag mu bañ koo woote ci mbooloo fu mel ni jàkka walla mbooloo mu ñuy daje ñëpp di fa daje wa ilaa mu di ko siiwal wala mu di ko yaatal ci bépp jumtuwaayu yaatalukaay xabaar mu ne kon nag ñi ngi ñaan suñu boroom mu musal ñu ci barkeb Serigne Touba di ko taw suloo ci bayitam yii nga xamante ni wax na ko yaa rabbana hajjil salaamayka liman maa misluhu yuuladu fi ahli zaman yaa rabbana xinil balaa wa darar fi arbohal axiir min chahri safar waxsim lana yaa rabbana min kul min kulli kadar wa kuffana minal waba yaa zal qadar yaa rabbana ajjil xuqubatan liman xasadani fa anta maaliku zaman yaa rabbana ajjil xadaa haajiman xasadani wakaanani walil aman muy euh, ndigal loo xamante ni daayatu rawdu rayaahin la ko sëñ bi jottaliloo moom Cheikh mun Mountakha ñu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mboolem li mu yéene ci liggéey Serigne Touba mu matale ko dañ ànd ko ak moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu